mu am ay kàddu yu mu yëkkani ci benn dîner bu ñu organiser woon mu avaliser li nga xamante ne cette fois-ci mooy cette troisième candidature ci tënk rek yow lan nga ñu si mun a yokkal. balaa ñuy ñëw nag ci fond waxtaan li ma bëgg a wax mooy xam nga Sénégal dañuy wax te jotul wax dafa jooy ñu ni ko looy jooy mu ne dañ ma wax te jotul ki nga xamante ni mooy président de la république di son excellence monsieur Macky Sall il est en mandat dans un mandat de cinq ans bu muy jeexal en deux mille vingt jeexalu ko mën na bañ a prononcé wu ci candidature la am am na ci droit ou am ci droit mais les gens dans ce pays surtout opposition bi loolu mooy seen seul programme. Macky Sall amul droit nekk candidat te ba léegi damay laaj Sénégal yi Macky Sall dafa wax ni lan day nekk candidat cest à fan ngeen dégg Macky Sall wax ni il sera candidat. mais il est dans le clair obscur des professeurs. non non clair a ko ko bëgg a jox. ah li mujjee wax ak sunu naataango express. non j'explique xam nga nee bu jotee su ma a nekk candidat bu jotee dinaa ci waxtaan ak samay ñoñ su ma génnee wax ak waa Sénégal. kooku kañ mooy wane ni man waxaguma ni candidat la ça c'est un. deuxièmement dafa am ñuy tuddee en science politique l'impératif démocratique. c'est-à-dire. tey militant Khalifa Sall yi waxuñu ni Khalifa Sall mooy seen candidat est-ce que Khalifa Sall mën na ne candidat jamono ji. non non et pourtant am na ñu taxaw ni mooy seen candidat Sonko su procédé yi continuer ba benn moment am lu xew est-ce que dina nekk candidat pourtant waa Pastef yépp nee nañ mooy kuy seen candidat nga dem waat léegi lañ nangul ñee ñu bañ waa nguur gi bennoo bokk yaakaar ay militant bu leen neexee nii Macky Sall même bu ko conseil constitutionnel waxee ni doo nekk candidat ñu mooy suñu candidat. mais c'est que dafa am un précédent. dama naan voilà dama naan dañuy dañuy dañuy expliquer man je parle des principes man newuma ci conjoncture newuma ci environnement ce sont des militants Ismaïla Madior Fall keroog bi muy wax c'était le professeur d'université qui parlait ou le militant APR qui parlait Farba Ngom c'est un militant. bu ko neexee ni man sama candidat 2024 Macky Sall la. mais yére boobu mënu ko simb. léegi léegi nag. professeur yow nga ko keroog ci plateau TFM. non dama nga sa sa yére boobu en tant qu'intellectuel mënoo ko simb. encore une fois dama ni. oui damay poser question. parce que fa mu toogoon di wax du en fi dafa ne woon euh, euh, Rufisque di wax ak ay militants man je parle de sur les principes maintenant euh, man du ma ci tontoo gum je le dis et je lu tax. parce que ndey mbili gi waxagul. te dama lay wax loo xamante ni maa la ko wax tey jii fii ñu toog maa ngi yow bis bu ci président Macky Sall àddoo ni il est candidat ñëwal posé ma question bi ma jox la sa point mais yow professeur joxe woon nga fi sa point de vue non. ba ñu commencé. depuis quelque temps di la di xam nga non vaaruñu ma vaar xam nga mooy la. Hmm. da ngay wax lii wax lee ñu teg di waa yaa waxoon lii yaa waxaat lii benn élément la ñuy teg. nga gis ñu bind ci suuf man damaa ruus sax waxoon nga lii waxal la lan laa waxoon lu ma waxaat mu juuyoo il faut faire très attention il faut faire très attention maintenant ki nga xamante ni moom la ñuy liggéeyal moo toog ak ñun ni ñu bu leen jox possibilité ak occasion opposition ñu dund parce que élément bi bu ngeen ko ci waxulee du ñu nekk ñoom tey bu génnoon wax ni il n'est il n'est pas candidat il serait mort dootuñu am élément parce que mooy seen seul élément de subsistance léegi ñun ñu nekk dañu au pouvoir ñu leen di alimenter pour ñuy subsister duñ ko tal pour man c'est pas le moment d'en parler tant que ndeyu bi léegi waxu ci te tant que waxu ci du ma ci génn naa di ci wax ndax la ma ca waxoon wax naa ko ba noppi. te loolu leeroon na. dans ma tête c'était clair dans la tête tous les Sénégalais c'était clair maintenant laissons le temps au temps moom bu ci waxee. ñëwal ne ma professeur yaa ni ma woon bu président Addo di ma jox sa version lii la wax loo ci xalaat ma wax la. mais vous restez mais fi ñu toll nii. vous êtes toujours constant par rapport ak. nga waxoon ci plateau Papa Ngagne dama ni fi ñu toll nii duma ci yàbbi du ma ci sax li nga xamante ni moo am mooy li ma waxoon benn jour kilifa amul lu dul joxe recommandation njabootam nangul ko ko woo nañu ñu toog ñun ñëpp mënuñu bu ngeen ma déggalee nii bu leen ci waxati. ñun considéré nañ ne nous sommes des enfants disciplinés ñi génn wax déggaluñ ko ñoo xam ñoom la engagé mais man li ma engagé mooy je travaille pour terminer avec lui en beauté le mandat en cours parce que ba léegi mooy président de la république jusqu'en février 2024 même avril parce que même bu fekkee nii keneen mooy nekk président de la république moom mooy continuer ba le 2 ou le 3. dafa am protocole bu ñuy suivre donc à partir de ce moment là il nous a demandé de continuer notre travail dans le silence et la sérénité ci loolu laa nekk. maintenant beneen opposition du ñëw du ñu poser son agenda parce que Sénégal dañu am benn habitude l' mooy joxe actualité bi mooy wax li ñu war a wax ñun te loolu duñ ci dugg c'est nous qui gouvernons on va pas subir le dictat de l'opposition le dictat des gens